ngeen jëf mbokk yi ba léegi ñëwaat nañ ci beneen combat diggante Laye Diène Ndiaye Diène Ndiaye Diène ak ki nga xamante ne ni mooy Boy Loro bu xam sa cosaan Boy Loro nag yaakaar naa ni bokk na xale yi gën a naqari utal adversaire Laye Ndiaye Diène Ndiaye lu dugal si kii <laughs> waaw onze billah bismillah onze billah inna wali yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe yàlla bu baax di gërëm yonent bi du nuyu ñi ma àndal ñëpp ñoom Abdou Ndiaye ñoom Abdou Seck Jackson xam nga guy gi waaw du nuyu ñëpp daal ak fi ma jóge waa Kër Masaar xam nga buun yëmbal Malika xam nga waa Daaru Salaam talibu xonk ñaax xam nga maay waa Malika ñëpp daal nuyu naa fi ma jógee ñëpp bu baax a baax di nuyu samay kër su ñoom Adama Ndiaye Kam Ndoy xam nga eh, di nuyu ñëpp daal Omaro xam nga ñëpp daal ñoom zaal ñëpp mu limee daal damay jub mais nuyu naa ñëpp daal. nuyu nga ñëpp bëgg ñëpp ñoom ak ñëpp waaw. adversaire xam nga ko. de. xaw ma ko bu dëgg rek neexee. lan moo dugal ci moom. ah <laughs> war a bëreeg war a bëreeg moom bëreeg moom. mais avant sam traîné na fi yëpp nangu koo jël yow nga jël kon maa ngi hmm. ah, <laughs> man dama koy sant ndax lim ma jël. waaw hmm. ah, boobu léegi maa mu ngi xaata ñoragul gaan xam naa ne moom saa mooy loolu. saa dina ko ah jàpp naa ne dina bëre de. Hmm. waaw. waaw ah, ginnaaw baatu aouzu billahi mina sheytaan rajim bisimillah aouzu billahi bisimillah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfe Sëñ Fallou Mbacke maa ngi ziar ñëpp ah di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu suma adversaire bu baax a baax xam nga di nuyu promoteur bi di nuyu sponsor bu baax a baax di nuyu Texe di nuyu Ndoy xam nga di nuyu ñëpp daal di nuyu sama waa dëkk waa Loore yëpp ak waa Seras ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu waa Pikine yëpp ah di wax ñu waaj incha allah ñu waaj le 19 si kàttanu yàlla dañuy ñëw mu sedd guy incha allah. ñëw mu sedd guy. bi si yàlla xam ñëw rek mu sedd. adversaire bi day na waar de. kan kii kii ragal la boo ko xoolee sax xam ne ragal la muy wax di insisté nii. ragal la si ragal la xamul si kum dugg sax. dama noir fii la laal te dina ragal ka de. non yokku fit la. yokku ah, man maa ngi nii di xoole yaa gis samay bët. Ah. tekkil say verre ok. man fu ma jógee munu ma doon tapet munu ma doon ragal sax hmm. bu ma ragalee dañ may ray hmm. barke Serigne Saliou Mbacke sant naa ko bu baax ngir lim ma jël waaw dama dafa xaay ma war a bëree barke Serigne Bamba. est-ce que xam ngeen ci journée bi ngeen di bëree. waaw journée bi ñu siy bëree maa damay damay damay féliciter Sidi Diakhaté ndax moom mu ngi may doog a tëgg quoi waaw da ko ñaanal li li ko dugal si man yàlla na réussir quoi ak mu réussir journée bi yëpp maam mu li mu tëgg Dakar fii du ko réccu quoi ñaanal naa ko lool noonu waaw mais bii nii bii amul may wax ma damay jëf moom. waa instant du waxuma de du ma wax waaw. dama soxla ko waaw. a jëf ak man ay bokkam. Hmm. buñ ko jëfloo ak man dañ koy gën a sonal rek. Hmm. billaay walaay taalaay xam nga daanoo ba pare dem faju ji bu mu ñëw ci loolu. daanoo ba dem dem faju ji. bu ko ay mbokkam digalee loolu bu fekkee am nañ luñ ko jëndalee ordonnance ñu ko mën a fajee dañ ko jël lu leer laa wax. Fall yow ñi ma bagaar ak man. jàkkaaroo la kii bi kii laay waxal ndax moom la amal bis moom ñemewul xeex ak man ñemewul xalaatu ko sax yow ñeme nga samp jàkka xeex moom yow yow man damaa tàppeloo man dama daan xeex te duñ ma fay buñ ma fayee day gën a neex de hmm. ah man jàpp daan dóor mu daan moo ma ko gënal kon xam dóor mu daan moo ma ko gënal man ñëw rek bëre xeex bay nàcc ku nekk dem ardo moo ma gënal ñëw rek di bëre sit di am man du ma bëre te saapoor ñëwul eh du ma bëre te saapoor ñëwul laa la wax man lewatuma de sa waay maa bëgg nga dégg loolu sa bopp bi fee du fa am yoon sax ndax ñaananu ma la yàlla di la dóor ba sapeur di la jël si déedéet voilà eh. si ardo bi laa nekk <laughs> yow dama lay xaar nga dem ñëwaat pour ma boobu moo la jàppee daan la sax day yomb. kii daa umpule na dem laajte ji ba pare. moo gën na dem laajte ji moo gën dama ni la kii na dem laajte ji moo gën jàmbaar dama nga laajte ji. man la Ndiaye Diène xale ñaabu fël fës yëm ñëpp ni jantu guddi. Fall man ragaluma yal na la yàlla defal jàmm ak yow yal na la yàlla defal jàmm duma soo amul jàmm duma la daan yal nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp ba bis ba bu bis ba boo dikkee loo andi danga ko xeeb te lépp loo andi day niil zéro lay doon boo bëggee dégg de naa andi lépp ba indaale laspeer xam nga laspeer fit lépp dinaa ko indaale laspeer ragal a yor ragal mooy tollu fële di laspeer kenn du xam ku dóor ki dama ni la eh, dama ni la boo ñemee li ngay def man du la laspeer lii laa lay dóor lii nga yor ko xam nga man yoru boo ma dóoree xam nga yow boo ma dóoree lasper te yoruma lasper loolu amul sens du ma yor lasper mbër doo xeex yow yow doo bagaar loolu du dadul xeex boo teg loolu maa man xam naa xeex mbër yi mm. li ñuy wax duñ ko def lépp loo lépp loo préparé lu dul xeex Ah. lép loo préparé lu dul xeex ah. loo fay jëlal rek da nga xam ni yaa ko teg eh, man lép laay préparé te yow xolal yow doo puus doo paas boo bëggee dégg dégg léegi ñu woote leen mais loolu leen promet loolu leen promettre li ngeen xam ne mooy promoteur bi nga xamante ne nii yaakaar naa ne journée bi ngeen di naa ne bëri ñoo si bëree yaakaar naa ki nga xamante mooy Tyson de war see bëree caatu yoof kaaw guur deen ndigal ay champion si bëree loolu leen wax promoteur loolu nga koy promettre waaw promoteur comme li ma la waxoon rek mu may doog a tëgg quoi dama koy ñaanal journée bi réussir quoi te premier combat am Dakar la tamit lool maa ngi ko koy ñaanal bu baax a baax mais journée bi moom man loolu yéemu ma ko waa ndax man moom man gisuma sax Tyson 2 kii man bii laa gis te bii dina xam ne moom laa gis. mais côté mobilisation foo leen waaw man damay woo ñëpp rek di woo sama waa dëkk waa Morola waa Kër Massar Malika Yëmbal Buun Talibu Xonq ñaax Daaru Salaam 7 ak 6 woo naa ñëpp 54 bi Kër Massar woo naa gaa yëpp. di woo sama président nag Kewa Kanté moom xam na waa Kewa làmb ji sa làmb la waa ñëwal jëndal ma billet ma jox ko gars yi baafaalu yoo lañ dem esaat di nuyu waa Morola baax baax na ma séeréer Morola laa mante mante bi képp kuy wax mante mante rek waa Ndiaye Diène mu ngi lay tàllal loxo di la wax nga ñaanal ko bu baax a baax a baax waaw di di di li ma la waxoon di waat sama coach yi ndax man ñoom rek laa am ñoom bu ñu ma waxoon tëddal di nelaw damay tëdd nelaw bu ñu ma nee entraîné ma koy def ñoom Abdou Seck Pape Diouf Kam Ndoy Omoro Adama Ndiaye xam nga ñoom ñëpp daal ñoom zaal xam nga ma limee mun naa juum quoi mais waa ressortissant de Fatick ak ak ak alliance xam nga maa leen di béggee waa ressortissant de Fatick maa leen di béggee bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm quoi Abdou Ndiaye Pape man dafa am ñoo xam te ne nii dañuy sonn si man quoi mu metti mu neex gis nga ñooñu noonu faal man bii bu mu ko reyee rek ñooñu la barki Serigne Saloum ba am na ñoo xam yow yow ñooñu mënu ma leen gis di daanu sa kanam ah xool ay góos ak duraat da ngaa neex rek. sant ñëpp di gërëm ñëpp ah waa di jégalu ñëpp nag ci teewaay bi nii xam nga di ziare promoteur bu baax di ko ñaanal journée bi réussir xam nga parce que lii yombul comme que comme que lii mooy première journée am Dakar ñu ngi koy ñaanal bu ëllëgatee mu gën a sawar bàyyi àll ba tey ñëw Dakar rek hmm. àll ba sax si mais mu gën a basé wu fii ko hmm. waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm dooy xam nga di gërëm mataxe di woo suñu waa dëkk waa Loora yëpp ñu ngi leen di woo xam nga di woo waa Seras di woo waa Pikine yëpp xam nga di woo képp koo xam ne yaa ngi jàppale booy loor rek ñu ngi lay woo xam nga di ci woo ku ci mel ni ku ci mel ni suñu président Xaadim maa ngi koy woo bu baax suñu papa Xaadim Xaadim ñu ngi koy woo bu baax di ci woo suñu papa Gaydel xam nga di ci woo ku ci mel ni Badde daf ñuy jàppale bu baax a baax di ko woo di ci woo Assane Rakam di ci woo waa ADL bi yëpp ñu ngi si woo xam nga di woo ñëpp képp kuy loora loor rek ñu ngi lay woo xam ni seen doom am na combat xam nga ñu woo ñëpp ñu jàppale ku si mel ne Mamor ñaa daf may jàppale bu baax maa ngi koy sant di ko gërëm xam nga ku si mel ne Fallou Côte d'Ivoire maa ngi koy woo tamit yaa ma a xam fa mu daan dugal gars yi rek na ko fa dugal foofu waaw incha allah waaw waaw maa ngi woo Adama Sarr sama sama sama monsieur le maire quoi di woo grand kaaw Kawman di ko wax mu jàpp si làmb ji xam nga grand Moussa Koñ ba sama ganaay nekkoñ bi ñoom Père Lamine ganaa Matar xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di woo daal ñoom ñëpp nañ ma ñëw jàppale ma si làmb ji parce que làmb ji dama ko soxla quoi waaw di di gërëm sama caméraman Idi <laughs> waaw jërë ngeen jëf mbokk yi dinaa leen sorti si di jaxte bii nag si Dakar moom yaakaar naa ne peut être nag galaay fi daan am daa xaayda